ginnaaw ay jafe-jafe yu bëri yu ñu nemmeeku ci nawet bi atum 2021 ay quartier yu bëree bëri loru ci ci dëkk bii di Touba taxoon Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkati woon ab somb ama am solo jébal ko autorité étatique yi ngir ñu taxawu ci way loru yi ci mbënd mi niki noonu yëkkatiwaat beneen somm jébbal ko xisbu tarxiya ngir ñu delsiwaat taxawaat ci li nga xam ne ñooy way néew ju doole yi waaye tamit way lor yi ci biir mbënd mi Touba ca kanam Nourou Daarayni moom it bay ci waar bu ama am solo recensé lu toll ci juróomi téeméer ci ay famille génne somme bu toll ci juróom fukki million séddale leen ko ndaje maam am solo moomu mu ngi doon amee fii ci résidence Cheikhul Khadim bi nekk ci Daaru naan ci teewaayu responsable yu Touba ca kanam waaye tamit way lor yi nga xam ne ñoo loru ci mbënd mi ñoom it teewee woon nañ ko ngir mën a jot leen Touba ci kanam doon jàppale. Touba ci kanam ak taxawaayam bi nga xamante ni li ko ñor rek mooy yittey askan wi niñ koy faral di waxe laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam ginnaaw ba nga xamante ni comité directeur bi waxtaan nañ ak kilifay Touba ci kanam bi ñu gisee nawet bi ak ni mu doxe xalaat ne war nañoo jàppale nit ñi nga xamante ni am nañ ay jafe-jafe ci mbënd mi ndax nawetu ren bi gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni andi na ko ci loolu Touba kanam waxtaan ak kilifa yi ñu dégagé benn budget wu 50 millions war ko jàppale askan wi ci noonu ci biir 50 million yi daje nañ ci ay daje yu bari waxtaan xool nan lañ koy doxale waxtaan wañ ca tënk nekk ne nañ ko jàppale 500 familles muy juróomi téeméeri kër yoo xamante ni dañ leen ci jàppale ñu mën a euh, euh, wàññi li nga xamante ni mooy dégâts yi nga xamante ni am na ci seen kër yi. liñ ci tënk mooy juróomi téeméeri kër yooyu kër gu nekk danañ la jox cent mille francs bi ñu ko defee tubaaj Kanam waxtaan ci biiram ñi ko séq daje muy commission sociale bi nga xamante ni mooy taxawee loolu ak commission finance bi nga xamante ni moo yore koppari Touba Ca Kanam yi. ñu waxtaan former ay équipe yoo xamante ni ñooy dem ci terrain bi ndax bi euh, bi nawet bi ñëwee bari na ñu ñëwoon ci biir Touba kanam di sàkku ndimbal mu nekkoon lim bu bari lim boobu bi ñu ko jëlee listé leen jël seen ay adresse ak seen ay numéro téléphone tubaaj kanam dafa formé ay commission yoo xamante ni ñoom ñooy dem ci terrain bi wàcc wàcc dem xooli loolu ak ñooñu li ñuy laaj ndax méngoo na ak li ñu leen war a defal wala déet ci loolu Touba ci kanam formé juróomi équipe yoo xamante ni équipe bu ne ñett nit ñoo ciy nekk ñu dem ci terrain bi xool ñi nga xamante ni bindu si woon nañ ñu recensé ci lu mat 143 personnes ci biir loolu mu des 357 personnes 357 familles yoo xamante ni war nañ leen a recensé waat ci la ñu waat formé waat quatre équipes yoo xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni waxtaan nañ ba xool zone yi nga xamante ni gis nañ ne ñooy zone yi gën a touché ci mbënd mi muy euh, Ngiraaneen muy yoon daaru muy Ndaamaatu muy Kër Ñang ñu formé waat quatre équipes yoo xamante ni ñooy dem recensé ji loolu quatre équipes yooyu équipe bu ci nekk de quatre personnes ñoo ciy nekk bi ñu demee ba recensé ko jël seen filiation yëpp seen adresse yi ak numéro téléphone yi indiwaat ko loolu lañ jël convoqué ñooñu tey ji mooy ndajab tey ji muy kër sëñ Touba gi nga xamante ni daje nañ fi euh, muy lim boobu ñu daje jébbal leen li nga xamante ni mooy liggéey liggéey bi ñu doon liggéey. ñenn ñi loru ci mbënd mi sant lool Touba ca kanam ngir taxawaay bu ama am solo bi nga xam ne taxawee na leen ko wone ak jàppaleem jëm ci ñoom. nga xam ne lu ko jiitu daana leen jàppale rawatina bisub tey. doomu aadama bu tëdd yeewu ndox dugg sa kër xam nga loolu moom metti na lool surtout ñun ñi nga xamante ne daanaka suñ place su liggéeykaay ndox mi dakaa nangu. mën naa la wax ne euh, trois mois yu nga xam ne liggéeyuñ ñi ngi ko ñu ko am xam nga loolu euh, doy na waar waaye nag ñi ngi sant di sant suñu Tuubaa baax a baax a baax di sant Tuubaa ca kanam te li acte mu def ndax lii moom wax di yàlla moom bég nañ ci lool. waa Tuubaa sa kanam lu ñu bëgg ñoo ko xam. ndax waa Touba sa kanam ñu ngi liggéey di jox doomu aadama njaay yi ko war a tedde te bëgguñu si dara ñu yéen mi ñu koy joxee tim nit sutur la nit ñu baax lañ ndax man korog ba sama kër peesee man benn jigéen doomu laa sama bër sama borom kër teel naa nelaw lool ay góor yàlla rek ñoo fa aw na ma soxna si demal sa Touba sa kanam bu dul woon Touba sa kanam sax wërsëg wi jóge si sëñ Moustapha rek yor na ñoo ngi koy ñaanal di ñaanal waa Touba sa kanam di ñaanal ñii di ko joxe tim ndax ñii di ko joxe korog ba ma demee sa mbënd ma yar bu yiw lañ ma jox. man di sant naa bu baax Touba ci kanam ndax man lii dafa doon loo xam ne lii ñëpp loo ko defal Touba ci kanam ñëpp ko moom ñëpp ko moom kenn waru fee dem wàcc wàcc sax moroom. doomu Adama surtout ma taalibe lu mu defal moroomu taalibeem rek daf ko da koo sant ndax ñun ñëpp lii ñun kenn ko daf laa waroon. waaye nag comme ñoom xam nañ ci jafe-jafe juñ nekk xam liñ nekk ñu yërëm ñu ci euh, ba defal ñu lii dafa kawe suñ jot dañ ciy sant bu baax di ñaan yàgg yàlla suñu borom yàggal taxawaay bu baax a baax a baax. man day sama lépp ci Touba kanam laa koy def amul lenn luñ may mën a laaj lu ma lu may ci Touba ci ma taxaw ci. Touba kanam damaa gisul lenn muy mu dellu ginnaaw ci loo xam ne lii moo moo moom la moom la moom la sëñ bi santaane lépp lu muy santaane rek Touba ci kanam a ciy jiitu moo cay man kon nag man bu may defal sëñ bi rek. ci Touba ci kanam laa koy jaarale. Touba ci kanam dellusiwaat na ci lim bi nga xam ne moom la tànn muy juróomi téeméeri famille yi yi mu jébal kenn ku nekk somb toll ci ñaar fukki junni xam na ni bëriwaat na ñeneen ñoo xamante si ne lor nañ waaye daanu dafa dajul suuf. recensement bi nga xam ne moo jiitu woon te yeneen kuréel yi doon ko def wax nañ ne li loru ci mbënn mi toll na ci ñaari junni ak lu topp kon li ngay séddale nag bu fekkee ne dafa am lim bu mu tàmbalee am fu mu yem ñëpp duñ ca mën a jotandoo ni ñu ko bëggee. moo tax ñu jël ci ab lim boo xam ne nii bëggoon nañ ku ci nekk ñu feeñal yéene joo xam ne danga xam ne amoon nañ yéene defal la sa kër na nga ko bëggee waaye nag kon ni ñuy wax daan daanu dajul suuf moo tax ñu jël ci ci juróomi téeméeri kër yoo xam ne ku ci nekk jox nañ la ñaar fukk junni kon képp koo xam ne gis nañ ne visité woon nañ sa kër te bokkoo ci lim bi na nga xam ne gis ginnaaw bu nu visité sa kër laaj yooyu ñu doon la laaj di la laaj ndax ndox mi yàqoon na fi daraak ndax jotoon nga génn ci màggal geek lu mu la yàqal ak yu demee noonu ca laaj yooyu lañ sukkandiku xool ba xam ndax danga nga mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël ak ñi nga xam ne jëluñu leen am na ci ñoo xam ne itam ci njëkkoon nañoo ñëw ci sees bi bindu fa yàlla dogal itam bokkuñu ci lim bin jël ñu xam ne tamit lii programme la boo xam ne dafa dabe ndax njëlbeen gi moo doon dindi ndox mi ci mbedd yi rek ak sëkkaan mbedd yi waaye doonu doon taxawu borom kër yi kon koo xam ne ni gisu ci sa tur na xam ne programme bi nga xam ne nii dafa dabaate moo waral mu tëdd nii. liggéey bi di lenn ci li nga xam ne moom la Touba kanam def ci nawet bii waaye li ko jiitu doon na def ay opération wàllu yéen ci quartier yi ak ay gox yu bëree bëri mu taxawu leen ba seenum ndox daal di mën a génn waaye tamit mu taxawu leen ci ay charge suuf yu bëree bari yoo xam ne sotti nañ ko foofu lee ca yooyu quartier. Euh, Touba kanam taxawaayam du doon dimbali nit ñi kese ndax Touba kanam li ko war ci dëkk bi bëri na te gisoon nañ li nga xamante ni taxawee nañ ko ci opération defar yoon yi. Euh, daaw liñ ci liggéey am solo lool bari lool waaye nawetu ren bi am beneen taxawaay bu bees boo xamante ni defoon nañ ko ci ñu indi beneen opération muy opération wàllu askan wi opération boobu aussi évacuer nañ ay ndox yu baree bari ci quartier yu bari yu wuute am na ci ay mbedd yoo xamante ni tamit gis nañ sëkk sëkk sëkk yu bari yu ñu fa def nga xamante ni dimbali na nit ñi rawatina bi ñu ñëw ci ci ci màggal gi ak équipe yi nga xamante ni àndoon nañoo ñoom ñu dugg ci quartier yu baree bari jël ay hydrocureur wàññi ndox mi donte ndox mi yëpp jeexul ndax nawet bi ni mu doxee woon waaye am ci mbedd yoo xamante ni jafe woon na nit ñi mën cee jaar pour agsi ci biir dëkk bi ci màggal gi loolu yëpp Touba Kanam taxaw ci taxawaay yu am solo jënd ay charge suuf yu baree bari yoo xamante nii Euh, yóbbu nañ ko ci yenn mbedd yi jaa yóbbu fa compacteurs yi machine yi nga xamante ni tubaaj ci kanam yore nañ leen ñu defar yoon yoon yooyu ba mu praticable ba nit ñi mën cee agsi ci biir màggal gi loolu nag mooy Touba kanam Touba ci kanam li ko tax a jug mooy yittee askan wi Touba kanam li ko tax a jug mooy nekk ci ron kilifa yoon wi muy sëñ mun taxaa ca gis nañ taxawaay bi nga xamante ni sëñ mun taxaa am na ko ndax lii Touba kanam di def mën nañ ne ci moom la ko royee ndax gis nañ sëñ Muntaxa jël euh, koppar yu baree bari jox ko gouverneur mu séddale ko euh, ci askan wi tubaaj Kanam loolu tamit taasu ci barke boobu def lu ni mel. Touba Ca Kanam nuuru daaray nii du dakk saa su nekk ci di taxaw li yittey askan wi waaye tamit li yittey dëkk bu sell bi di Touba ngir mu mën a jëm ca kanam.